toj ndax ay pas de danse ak fecc euh, gannaaw ba nga xamanteni rek ki nga xamanteni ni chanteuse de la troupe nationale dafa yëkkati won rek benn way dal di koy jaglel Macky Sall niki non nak si la Idrissa Seck dal di tàqalikoo ak sagom rek jog rek di tatchu tatchu yu jéggi dayoo euh, ki nga xamanteni ni moom président Macky Sall idi dal jamono ji ñi wax ak yéen moy toj fi nga xamanteni rek mom moy CICAD euh, alors bu desante ba tay si politique bi Pastef ak taxawu Sénégal lool nak melni ni dafa am ay mbir mbir yoo que ñing koy waaj waye nak les confidences de Sonko sur sa rencontre avec Khalifa Sall rek nit ñi ñi ngi lamé ndax da ñom ñaar dañuy waajal li nga xamanté ni mom moy coalition am déet waye en tout cas dal. ci ay kàddooy Ousmane Sonko dal yi nga xamanté ni rek mom la jëlé ci rencontre bobu non rek mu nga xamanté ni mom la ak ki di Khalifa Sall mom mi ngi xamlé candidat né dal en tout j'ai eu hier soir une longue instructive et promoteuse vue avec monsieur Khalifa Sall paix d'un mouvement taxawu Sénégal lool nak nek cadre yo xamante ni mom Ousmane Sonko euh, moko yëkëti way dal luñ fi mëna japp rek moy ñom ñaar amna lo loo ni euh, ñi ngi koy wajjal bu ndesente ba tay ci biir politique bi ciow li di way rek ki nga xamante ni mom moy Mansour Faye rek dal di yëkëtu ay cadre rek sur les tarifs du euh, péage mom Mansour Faye nak nee dal képp ko xamante ni nii jaar ci autoroute bi nga jël national bi lool nak nek lo xamante ni mi ngi ko yëkëti won lors du vote du budget de son département ministériel lundi bi passé Mansour faydal li ñu japp moy melni da fay minimiser rek li nga xamante ne nii euh, mbir mi ba si ay kàddoom mu leralat ko celui qui n'a pas de moyens pour passer par l'autoroute n'a qu'à passer par la nationale a-t-il euh, déclaré kàddu yooyu nak euh, neexul ben yoon ki nga xamante ne nii moom Cheikh Oumar si mi nga xamante rek mom moy président du collectif des usagers de l'autoroute à péage mom nak dal dinay réagir di xam le que ni mom Mansour Faye ci si ay xalaatam dafa jàpp que ni moom moom Cheikh Omar Sy mom mi ngi japp ne dal Mansour mon si ay kàddoom mi nga xamanteni ni yëkëti daf ko yëkëti rek dal di koy wax dal da fay sàmbale ni dafa manqué li nga xamanteni ni moy ay arguments ay bëtam tayit ba Cheikh Omar si rek dal di nay wax que ni rôle bi nga xamanteni ni ministère des transports terrestres daf ko wara défendre moy intérêt population yi te bañ a taxawee si li nga xamanteni ni côté société étrangère yi mon ba tey moom euh, Cheikh Omar si rek mi ngi wax ni j'ai l'impression en en entendant le ministre dire que c'est comme si il disait si le débat sur le, sur le troisième mandat ne vous intéresse pas, vous pouvez prendre les pirogues et aller vers l'extérieur et y émigrer. loolu nag nekk cadre de de ne nii rafetlu ko benn rek si Mansour ba tey si làng ko politique bi Omar Sarr nag daal dinay eh, yëkkati rek ay kàddu yoo xamante ni nag bomb la jëmale ko si ki nga xamante ne nii moom mooy eh, Karim Wade moom Omar Sarr nag mi ngi xamle que ni eh, Karim Wade daf ko doon supplé rek ngir rek mu dem gis kii di Macky Sall rek ngir ñu daal di koy mën a libéré kàddu yoo nag Omar Sarr mi ngi ko yëkkati woon si biir assemblée nationale moom jiital ministre de miin de la géologie moom nag nee na même sax bu doon Karim Wade dafa waxoon que ni bu ko Macky bu ko waajuram bii di Abdoulaye Wade yëg ko yëg te it moom Omar Sarr mi ngi xam la que ni laata bi nga xamante ne nii rek si la ko Karim Wade ñaan dimbaloo rek bi mu si gisee ak Macky Sall mu nekkoon première fois mu moom ne nii moom mooy euh, Karim Wade su ma jógee politique damay daanu ji fi nga xamante ne nii moom mooy euh, société ba tey rek biir bi nag mooy Mamadou Lamine Faye mi nga woon nan ko lool si réseau yi mu nekkoon waajuru Doudou Faye di xale bu tout tànk bi tolloon su fi fukki at ak daal di ñàkkoon euh, bakkanam rek ci biir gal gi mom nak yoon daal dina koy tecc lu toll ci 2 ans et deux mois euh, ferme mom nak il a été relaxé de complicité de trafic de migrants et déclaré coupable pour mise en danger la vie d'autrui waye mom nak ak ñi nga xamante ne ay jegeñaale mu ñu àndoon comme ñom euh, ku melni ni Kaytalo ak Alioune Ndiaye ñoom tamit nak daal dina leen ni tecc rek lu toll tamit ci 2 ans et un mois ferme démarrage du TER mon Mansour Faye nak daal dina wat ay cadre rek di xamle que ni daal euh, li nga xamante ne ni moom mooy euh, bi dana daw ci atum 2021 euh, loolu nak mi ngi ko waxone lors de son passage à la commission de l'Assemblée nationale ministre des infrastructures bi nak des transports terrestres et du désenclavement daal dina informé dal né terre bi nga xamante que sénégalais dañ jàppoon di laaj anaka lay daw mom dal na xamni sénégalais yi nañ jàpp que ni TER bi dina daw si atum deux vingt 2021 Euh, ñaawteef boo xamante ne nii dañ ko ràññee sa diwaanu Grand Yoff li nag benn waay buy wuyoo si trou euh, Vieux Diallo moom nag moo daal di poignardé kii di soxnaam suy wuyoo si Awa Diop nag ba mu nekk fi nga xamante rek moom mooy euh, dund ak dee moom nag mi ngi foofu noonu nga xamante ne moom mooy urgence de l'hôpital du Grand Yoff waaye ki nga xamante ne nii moom mooy Vieux Diouf gannaaw ba nga xamante ne ay tojitu bitee rek la daal di jamate ki nga xamante ni moom mooy soxnaam ba ame ame si moom tamit ay blessure nekk noonu nag si la dem fa nga xamante xamante rek moom mooy hôpital bu Grand Yoff te xamuloon sax ni jabar ji mi ngi foofu waaye nag si niki noonu ñi nga xamante rek mooy famille soxna si ñoom tamit ñoo ko daal di démasqué rek daal di bi daal di koy ko kii nii moo def ñaawteef ji bi daal di woote rek ñi nga xamante ne nii teg loxo waaye rek ba tey moom Vieux Diallo ak si maninam ak xelam sell rek daal di leen wax ka ni dafa bëgg dem rek toilette ngir def ay besoin am niki si confiance boobu noonu police yi daal di koy bàyyi mu dem si kaw loolu bu mu duggee si toilette nag si la daal di dindi rek li nga xamante ne nii moom mooy monotine ko takkal ba jaari si fenêtre bi rek daal di dem yoonoon ba jamono ji nag ñuy wax ak yéen police ñi ngi def rek lii di seen enquête rek ngir mën ko eh, tegaat loxo waaye beneen xew-xew boo xamante ne nii mi ngi am fi nga xamante ne nag moom mooy pont bu Mermoz di benn waaye boo xamante rek danga dañoo fekk rek ñu daal di koy faat loolu nag ñi nga xamante ne nii si boori fajar rek ñoom ñoo doon xëy rek ñoom ñoo ko daal di gis rek si noonu Euh, si leen daal di alerter rek ñi ngi xamante ne rek mooy euh, homme de tenue si kaw loolu rek bi ñëwee si léegi daal fa lañ fekk li nga xamante ne nii moom mooy ay trace su nag waaye ñi nga xamante ne nii nag ñoom ñooy police ubbi nañ benn enquête rek ngir euh, xam lan moo waral rek jëf ju ñaaw jooju am foofu noonu si pont bu Mermoz alors fi nga xamante nag foofu lay daaneele ak yéen mooy kan nii qui euh, dit suñu président Macky Sall tay di nak si muy li ans muy vendredi 11 décembre mom buñ président de la république il est le premier président de la république euh, né après les indépendances euh, précisément le 11 décembre 1961 à Fatik. il dirige le Sénégal depuis 2012 après une victoire contre celui qui fut son mentor le président Wade un jour d'anniversaire Wanema s'assoit au peuple à travers euh, les réseaux sociaux pour souhaiter un joyeux anniversaire à son excellence kon mon président de la république pour euh, corona anniversaire sport fi nga xamante ne nii foofu laay dikk ak yéen mooy coowal làmb ji Bombardier nag daal dina yëkkatiwaat ay kàddu daal di koy jëmale rek si ki nga xamante nii daal moom mooy ni bu jëlee ñaari kuwam du fa fekkaat troisième coup Bombardier ànd ak confiance ak fit bu dëgër doole daal di xam la que ni moom Balla daal na ko moytu bu baax a baax a baax li nga xamante ne nii moom mooy coowal 2-0 bari na lool si làmb ji kon Bombardier si ay kàddoom dafa jàpp ni 2-0 lay defaat digganteem ak Balla gay waaye ba tey rek si biir làmb ji camp de Modou Lo ñoom nag ñu ngi prévient ki nga xamante ne nii moom mooy doomu Falaye Balde ji di ko xamal que ni moom daal du Balla Gaye benn yoon te it moom Ama Balde ku war a moytu la te ku war a def attention la ci ki nii rek moom mooy euh, Modou Lo loolu nag euh, biram ñi ngi daal dinañ tamit yëkkatiwaat ay kàddu daal ne amul benn détail boo xamante ni daal danañ ko euh, négliger fi may mujj nag ci sport bokk na ci classement FIFA 2020 le Sénégal la meilleure équipe de l'Afrique de l'Ouest loolu nag FIFA rek moo ko daal di annoncé daal ne classement général des meilleures équipes 2020 euh, dal ki nga xamanteni ni dal moy euh, Sénégal rek mom mo euh, nek ce kaw 21e nation au monde le Sénégal d'al dal dinay terminer fi nga xamanteni mom moy première place dans la zone suñu dikkee ak yéen après sport dañuy jëm ak yéen fi nga xamanteni ni nak mom moy people li lëmbee askanu Sénégal dal di lëmbee fi nga xamanteni ni mom moy université Cheikh Anta Diop gannaaw ba nga xamanteni ne nag étudiants yi ñay ngay jàmmaarloo takk deri rek ngir seen coowal bourse lool nak ñu dal di gis que ni album kii album maam góor jazaake nag daal di nan ko fay taal mu mel nag ñoom dafa am colère boo xamante ne ni daal dafa am seen digg ak kii di maam góor jazaak waaye nag maam góor jazaak rek daal di nay génn daal si ki nga xamante ne ni moom mooy Ousmane Sonko daal di xam le que ni la xew rek moom Ousmane Sonko moom ndayi mbili ji ndax lépp loo xamante ni daal mooy ñaawteef boo xamante ne ni étudiants yi ni ngi koy def rek moom ma moom moomu di rek moom moo nekk sa gannaaw loolu nag nekk kàddu yoo xamante ne nii maam góor jazaak daal dina ko yëkkati waaye rappeur bi nga xamante ne ni rek moom mooy Euh, nit dof daal dinay ñaawlu bu baax comportement bi nga xamante ne nii rek maam góor jazaaka mi ngi koy amal si digganteem ak Ousmane Sonko moom nit dof mi ngi wax que ne li muy def nekkatul politique mais dafa nekk incible boo xamante ne nii daf ko jëme rek si ki nga xamante ne nii moom mooy Ousmane Sonko te it maam góor jazaaka dafay manqué respect ñi nga xamante ne nii moom mooy sénégalais yi te teg si ne maam góor jazaaka saa suy wax xar yi sax dañuy takk seen ay bak moom daal dina yëkkatiwaat ay kàddu wax ni maam góor jasaaka sax suy wax xar yi sax dañuy takk seen ay nopp ngir bañ a dégg rek wax yu ñàkk solo yi nga xamante ne nii rek maam góor jasaaka euh, mi ngi koy yëkkati en tout cas si ay kàddu yu nit la kàddu yi nga xamante ne nii rek euh, maam góor mi ngi koy jëme saa su nekk rek jëme ko si Ousmane Sonko ba tey beneen coow jëm si coowal racisme Pape Cheikh Diallo nag daal dinañ koy taakale fi nga xamante ne nii moom mooy réseaux sociaux yi gannaaw bi nga xamante ne nii euh, dafa daal di génnoon di wax rek ni ñun dañuy niroog ak ay golo loolu nag neexul benn yoon ñi ni ñoy internet yi ba tax yak nan ko lu melni ni xamete it dañu wax que ni mom pap Cheikh Diallo suy wax warna xolaat bu baaxa baax limuy wax ndax lan euh, porteur de voix la waye nak ñen ñi tamit na naan Cheikh kuko xam xam ko ci ay délire waye téwul mom mi nga xamante ni mom moy nday mbili di daal dinay génn rek di jéggalu bu baax kàddu yoy nga xamante ni rek daal dina ko yëkëti te mom pap Cheikh sax mi ngi wax ni mu sax su rombaté du ko tudd kon nak pap Cheikh daal dinay jéggalu alors ñuy ñaan nak internet yi nga xamante ni ñoom tamit ñoo dessal ni nañ ko jéggal comme rek daal dinay jéggalu rek alors benen beneen kawteef boo xamante ne nii moom moo am muy coowal mercato Ndeye Ndaar Touré nag moom tamit gannaaw bi nga xamante ne nii ñu ngi koy ŋaawte ŋaawte ne daal dafay jóge euh, foofu noonu fa 2STV loolu nag suñu ay naataango sans limite daal ñoo si gën a fës si information boobu noonu ba tax nag seen euh, page daal gis nañ ka ni biñ ko benn capture si benn page moom Ndeye Ndaar nag ma nga fa dem rek daal di euh, commenter wax di leen xamal ne leen kaana du démissionné te it waa sans limite trop de tuuma daal dans ce pays en tout cas moom Ndeye Ndaar daal mi ngi joxoñ bu baax a baax ñooñu nga xamante ne mooy suñu mbokk donc euh, sans limite yooyu rek di leen xamal que ni daal sans limite daal wax ji dafa war a am limite alors loolu nag ndey Ndack Touré moo ko daal di yëkkati rek mais daal si ay kàddoom li mu jàpp mooy Kaana du démissionner alors. voilà mbokk internet yu Wanema TV li leen indiloon si débrief de la semaine ma leen di jox rendez-vous di leen ñaanal week-end bu neex ak jàmm.